شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نسوري وتايدي ويسير الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي man maa ngi tudd Mouhamadou Khayri Touré. bàyyeekoo fan. bàyyeekoo Saloum jaar Dakar ñëw Touba. nu ngeen waaw sant yàlla rek ñëw si bisu ku tedd gi muy Cheikh Ahmadoul Khadim waaye di wax na nag yombut si ñun franchement parce que su mbedd yi lañuy lal da ngay dem jënd sa ñëw ñu daggal la jaay la ko lu cher ah. ñu ñëw nga lal buñ la xasee boo xasee jënd rek pare nañ ci moom waaw nga lal bu tawee. mu métti démb sax dafa ëpp bagage yi gis nga ko yëpp dañ koy weer gis nga ko dafa taw dafa tooy waa hmm? ah, ñu bëgg nag ñu dimbale ñu surtout ñi nga xam ne ñoo yor dëkk bi yor teg teg ñi sarta yi wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu seen sarta yi bu baax di ñaan yàlla itam buñ fi yàqu buñ fi yàqu la ci barke sëriñ bi képp ku fi ñoo yàlla nangu la sa màggal ci barke sëriñ bi waaw bëgg nañ daal ñu taxaw bu baax ndax fii day tooy dem ci guddi kenn nelawut fii te fii ndox mi day dugg bu lekk jotee itam ba baax na bàyyi faale génn xam nga génnee boole te ko si benn nit ñu añ parce que ñun ñu ngi nii daanaka depuis dem ba léegi jaaruñ ci waaw te itam te xam naa ne moom manqué wu fi moom ëpp na fi macha allah waaw di la ñaanal yow itam yàlla yokkuloo la si zaahir ak si baatin nga wax lu am solo léegi nii da ngeen di mhm. taw bi nga xamante ni na ñu ko waaw 2 mètres yi 30 000 lañ toog trent 000 une semaine. waaw 30 000 motu sa une semaine parce que bu màggal bi jeexee da ngay ñibbi boo jaayee boo jaay fere yi dafa cher parce que bâche bi pour ma defar ko rek daanaka def naa ci vingt 000. Hmm? doo ko doo ak ak ak ak 30 day nekk 55 000 nga doo ko paas ñëw fere yi yooyu dafa métti waaye lépp Sénégal gu métti la rek waaye bu fekkoon ne Dakar neex na dañuy def ni ñëpp sol suñu jasneer ñëw ziare sëriñ bi. joxe ci addee ji ñibbi waaye comme lii la yàlla teg dañ koy nangu rek bi nehmati yi waaw wala alhamdulilah ala kulli loolu la war a ne na ko ñu gis ni seen bagage yu ci bëri na tooy. dafa mhm. tooy. ah dafa tooy ñu ne ñu mhm. lii lépp nga ko ñëw ko kii mhm. waaw yaakaar la jàmbi di demee uh-huh. dañuy wakkiirlu ci yàlla ñëw. daan na ñëw nag wax dëgg yàlla di sant yàlla kon ñu mos ko mu neex ñu ñëwaat waaw te ñëw it daf ñu war parce que sëriñ bi képp koy jullit te sénégalais war ngaa bokk ci li muy woote boo ñëwee rafetal te itam boo fi mën a am xewal xamaale ko ci mooy comme li ñu def ni tiyaa ba tiyoo ko waaye tooy na metti na daal très franchement métti gi moom sëriñ luñ la ci wax rek parce que fere yi dafa métti bagage yi dem fii ñun ñu kenn nelawul man jigéen ñi sax dama leen yërëm dem waaw ko def alhamdulilah waaye bëgg nañ nag toujours nag képp ku jox nit place nga xam ne yow la yow la yaakaar yaay yaay yaay yow la am ci dëkk bi léeg-léeg nga nemmee ji ko nemmee ji ko xool ci lim nekk xam nga mais nag joxal ko ko rek pare si loolu dafa ñaaw trop ci diggante mbokk ak mbokk surtout murit ak murit waaw loolu dafa yéeme ko bu nga xamante ne ñooy kilifa yi hmm. yi lan lay doon. waaw autorités yi li ngeen di mooy màggal ak loo xam ne. yàllaa ko jagleel jàmm muy wërsëg di sénégalais yi loolu ala kulli al dañ si war a taxaw donte dañuy ñëw fii si Touba xool territoire ñu réglé ko comme ñu ngi ci teg ay chemin pour ñu organiser ñu ñoom war nañu jiitu defaral ñu sax donte ay euh, mbaar la yoo xam ne comme comme xam nga war naa la 2 mètres 30 mètres 30 mille la fay loolu xaj na si keesu Sénégal mais poche benn waaye lay dem. ba mu ci paree la pare bu doon autorité na nag xëy na dana la defal benn bâche boo paree mu dindi ko yóbbu lekk fa benn un mille trente mille am lekk ko ci téeméeri nit loolu xaalis la dana dem si suñu réew mi wala mu dem si Touba liggéey fi lu am solo voilà mais daal ñu ngi leen di ñaan ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ni dégguñ ci gaal yi sàcc ñu feeñu lu ñuy li ñuy suturloo yëpp ci kii bi lañ koy wutee comme ay marchand ambulant lañ ñu dimbalee di ñu bàyyi xel loolu daal ñu ngi leen koy sant bu baax waaw di sant sëriñ bi itam alhamdulilah jàmm ji bëri na macha allah waaw. kon ñu allah yàlla yokk ko. yóbbu ko ba fu mu yóbbu télé mag yëpp. si barke yéen bi barke Cheikh Tidiane barke Cheikh Amadou Khadim jërëjëf. naa la sëñ bi. Yankuba Ndiaye la. waaw na lool xam nga fi yaa ma gën a ay bâche bâche yi lañ yor mënutoo protéger taw bi taw bi daanaka suñu bagage la doon sottee ko gi mel noonu daa bëri lool fii yëpp ndox la defoon démb te aussi tamit man wàccee di ñibbi kër gi dañoo sonn lool si yoon bi fooy passe cent franc trois cent nga doon passe wala cinq cent gi mel noonu taw bi moom métti na lool lool lool lool sax non noo ken ñëwul gisuñ kenn ken lañ gisul non dañoo jox place yi sax am na ñu jënd am na ñu jëndul mais nag ñu jënd tamit gisuñ ñoo xam ne ñëw nañ di leen masoo gi mel noonu. waaw waaw loolu moo am na solo lool maanaam di di di di jëflanteeg ñi nga xam ne ñooy senegale yi nekk ci mbedd gi mel noonu ñiy wax seen soxlaak gi mel noonu yooyu lu am solo la waaw am na solo lool si tamit lenn laa bëggoon a lancer tamit euh, wax dëgg yàlla ñi sonn na lool Brazil boo jënd def Sonko ñi ñi dagg ko loolu mënuñ mënuñ mënuñ mënuñ koo dund ñun ñun ay jaaykat lan fii jaay moo ñu fi andi ba vrai ay murid lan mais ay jaaykat lan tamit Brazil euh, Sonko yi moom jotuut ak dara ak màggal bi nekk loo xam dañ koy takk di jigéen jigéen loog de daaw lu muy symboliser moo tax ñu takk ko nañ ñu bàyyi ñu takk suñu Brazil gi mel noonu loolu laa bëggoon a laser pour ñu xam ko pour ñu dégg ko ñëpp. waaw kili li leen wax mooy ñi jàppee ñu comme seen doom sëriñ ci bu dee politiciens yi jàppee ñu comme seen doom kenn ku ne am na koo bëgg nit ki sax mën koo juutu du la bëgg mën a bëgg keneen mais ñu jàppal ñu ñëpp Sénégal ay Sénégalais lañ Sénégal lañ nekk ñu ñëpp bu ñu xoolee suñu maam benn maam la wala ñeent lay doon ñoo bokk ndey wala ñoo bokk baay waaw maanaam kenn ku ne la bàyyi nga bëgg ki nga bëgg rek ñu bàyyi euh, dëkk bi am yoon kenn ku ne dund li ngay dund ñu ñëpp ñu dund si jàmm daal waaw loolu lay lancé daal kii merci waaw man maa ngi tudd Mouhamadou Khayri Touré. bàyyeekoo fan. bàyyeekoo Saloum jaar Dakar ñëw Touba. nu sant yàlla rek ñëw ci bisu ku tedd gi muy Cheikh Ahmadoul Khadim waaye di wax na nag yombut si ñun franchement parce que su mbedd yi lañuy lal da ngay dem jënd sa ñëw ñu daggal la jaay la ko lu cher ah. ñu ñëw nga lal buñ la xasee boo xasee jënd rek pare nañ ci moom waaw nga lal bu tawee. mu métti démb sax dafa ëpp bagage yi gis nga ko yëpp dañ koy weer gis nga ko ni dafa taw dafa tooy waa hmm? ah, ñu bëgg nag ñu dimbale ñu surtout ñi nga xam ne ñoo yor dëkk bi yor teg teg ñi sarta yi wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu seen sarta yi bu baax di ñaan yàlla itam buñ fi yàqu buñ fi yàqu la ci barke sëriñ bi képp ku fi ñëw yàlla nangu la sa màggal ci barke sëriñ bi waa bëgg nañ daal ñu taxaw ñu bu baax ndax fii day tooy dem si guddi kenn nelawut fii te fii ndox mi day dugg bu lekk jotee itam baax na bàyyi faale génn xam nga génnee boole te ko ci benn mi ñu añ parce que ñun ñu ngi nii daanaka depuis dem ba léegi jaaruñ ci waaw te itam te xam naa ne moom manqué wu fi moom ëpp na fi macha allah waaw di la ñaanal yow itam yàlla yokk la si zaahir ak si baatin mais nga wax lu am da ngeen di jënd place yi ci lu cher. Mhm. taw bi nga xamante ni taw na lool tey fii nga xamante mhm. euh, yi 30 000 lañ toog 30 000 une semaine. waaw 30 000 motu sa une semaine parce que bu màggal gi jeexee da nga boo jaayee boo jaay fere yi dafa cher parce que bâche bi pour ma defar ko rek daanaka def naa ci 25 000. doo ko doo ak day nekk cinquante 000 nga doo ko paas ñëw fere yi yooyu dafa métti waaye lépp Sénégal gu métti la rek. waaye bu fekkoon ne Dakar neex na dañuy def ni ñëpp sol suñu jasneer ñëw ziare sëriñ bi joxe ci addee ji ñibbi waaye comme lii la ñu yàlla teg dañ koy nangu rek sëriñ Ousmane Sonko yi alhamdulilahi bi nehmati yi waaw wala alhamdulilah ala kulli loolu la war a ne na ko ñu gis ni seen bagage yu ci bëri xaw na tooy. Mhm. Mhm. lépp nga xamante ni dépensé ko ñëw ko fii mhm. la jàmbi di demee. dañuy wakkiirlu ci yàlla ñëw daan na ñëw nag wax dëgg yàlla di sant yàlla kon ñu mos ko mu neex ñu ñëwaat waaw te ñëw it daf ñu war parce que sëriñ bi képp kuy jullit te sénégalais war ngaa bokk ci li muy woote boo ñëwee rafetal te itam boo fi mën a am xewal xamaale ko ci mooy comme li ñu def ni tiyaa ba tiyoo ko waaye tooy na métti na daal très franchement métti gi moom sëriñ luñ la ci wax rek parce que fere yi dafa métti bagage yi dem fii ñun ñuy kenn nelawul man jigéen ñi sax dama leen yërëm dem waaw waaye uh, laa ko def alhamdulilah waaye bëgg nañ nag toujours nag képp ku jox nit place nga xam ne yow la yow la yaakaar yaay yaay yaay yow la am ci dëkk bi léeg-léeg nga nemmee ji ko nemmee ko ji ko xool ci lim nekk xam nga mais nag joxal ko ko rek pare ci loolu dafa ñaaw trop ci diggante mbokk ak mbokk surtout murit ak murit waaw loolu dafa yéeme ko fekkoon am ngeen kàddu nga xamante ne ñooy kilifa yi hmm. yi lan lay doon. waaw autorité yi mooy màggal ak Touba. loo xam ne yàlla ko jagleel jàmm muy wërsëg di sénégalais yi loolu ala kulli al dañ si war a taxaw donte dañuy ñëw fii si Touba xool territoire ñu réglé ko comme ñu ngi ci teg ay chemin pour ñu organiser ñu ñoom war nañu jiitu defaral ñu sax donte ay euh, mbaar la yoo xam ne comme comme xam nga war naa la 2 mètres 30 mètres 30 mille la fay loolu xaj na si kel Sénégal mais poche benn waaye lay dem. ba mu ci paree la pare bu doon autorité na nag xëy na dana la defal benn bâche boo paree mu dindi ko yóbbu lekk fa benn un mille trente mille am lekk ko ci téeméeri nit loolu xaalis la dana dem si suñu réew mi wala mu dem ci Touba liggéey fi lu am solo voilà mais daal ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni dëgguñ ci gaal yi sàcc ñu feeñu lu ñuy li ñuy suturloo yëpp ci kii bi lañ koy wutee comme ay marchand ambulant lañ ñu dimbalee di ñu bàyyi xel loolu daal ñu ngi leen koy sant bu baax waaw di sant sëriñ bi itam alhamdulilah jàmm ji bëri na macha allah waaw. kon ñu ngi allah yàlla yokk ko. yóbbu ko ba fu mu yi mag yëpp. si barke yéen bi barke Cheikh Tidiane barke Cheikh Ahmadoul Khadim jërëjëf. naa la sëñ bi Yankuba Ndiaye la. lool xam nga fi yaa ma gën a ay bâche bâche yi lañ yor mënutoo protéger taw bi taw bi daanaka suñu bagage la doon sottee ko gi mel noonu daa bari lool fii yëpp ndox la defoon démb te aussi tamit man wàccee di ñibbi kër gi dañoo son sonn lool si yoon bi fooy pass 100 francs 300 nga doon pass wala 500 gi mel noonu taw bi moom métti na lool lool lool lool sax non non kenn ñëwul gisuñ kenn kenn lañ gisul noo dañoo jox place bi sax am na ñu jënd am na ñu jëndul mais nag ñu jënd tamit gisuñ ñoo xam ne ñëw nañ di leen masoo gi mel noonu. waaw waaw loolu moo am na solo lool maanaam di di di di jëflanteeg ñi nga xam ne ñooy senegale yi nekk ci mbedd gi mel noonu ñiy wax seen soxlaak yu mel noonu yooyu lu am solo la waaw am na solo lool aussi tamit lenn laa bëggoon a lancer tamit euh, wax dëgg yàlla ñi sonn na lool Brésil boo jënd def Sonko ñi ñi dagg ko loolu mënuñ mënuñ mënuñ mënuñ koo dund ñun ñun ay jaaykat lan fii jaay moo ñu fi andi ba vrai que ay murid lan mais ay jaaykat lan tamit Brésil Brésil euh, Sonko yi moom jotuut ak dara ak màggal nekk loo xam dañ koy takk di jigéen jigéen lo de daaw lu muy symboliser moo tax ñu takk ko nañ ñu bàyyi ñu takk suñu Brésil gi mel noonu loolu laa bëggoon a laase pour ñu xam ko pour ñu dégg ko ñëpp. waaw kilifa li leen wax mooy ñi jàppee ñu comme seen doom sëriñ ci bu dee politiciens yi jàppee ñu comme seen doom kenn ku ne am na koo bëgg nit ki sax mën koo juutu du la bëgg mën na bëgg keneen mais ñu jàpp ñu ñëpp Sénégal ay Sénégalais la Sénégal lañ nekk ñu ñëpp bu ñu xoolee suñu maam benn maam la wala ñeent lay doo ñoo bokk ndey wala ñu joo ko bàyyi waaw maanaam kenn ku ne la bàyyi nga bëgg ki nga bëgg rek ñu bàyyi euh, dëkk bi am yoon kenn ku ne dund li ngay dund ñu ñëpp ñu dund si jàmm daal waaw loolu lay lancé daal merci beaucoup raag boo ko déggee comme mag ñi bu njëkk dañ doon wax naan Fall bon doon xareloo te ku nekk xare xam na ne xare xeex la waaye nag xare ci jëf ku nekk xam na ne cooki tamit xeex la waaye li ma ko jëlee mooy rag maanaam ci jëf raak ci ndigalu sëriñ bi loolu moo indi raak ndax ba ma koy du jamono ji ba ma naan Fall ba doon raagloo benn Baye Fall du ñibbi defe naa ne image boobu wër na adduna waaw ah, gars yi bari xam nañ ma bu baax a baax a lii nag cest à suñu yaakaar tey ëllëg muy sëñ Mountakha di Serigne Touba joxe ndigal loolu bunti kër yi maam Cheikh Ibrahima yëpp kenn ku ci nekk ñu jël jëwrin maanaam jiital la ci sunu yaakaar ak nag àllaaxira di Cheikh Serif Assane Fall monsieur Moussa Nogay Fall moom moo ñu jox ndigal lii di nekk waaye nag ci kaw ay teggin. dafa um ko ci fitna dinañu maslaa en tant que mbokk taalibe ak morom ja dinañu maslaa ba am lu ñu bëgg dinañ leen nuyu la laaj la si jàmm yaram laaj la tamit aussi sa yoon baab neex na dalal la ndax it borom dëkk bi noonu la ko bëggee dalal la ci jàmm ak salaam waxtaan ak yow ci discipline maanaam wax la ni la ñun day lii leen bëggoon jël ndax sëñ bi da koy tere ci kaw ñaan ak aussi ak nangu tamit ñu romb la dem ci sa morom noonu di ko toppantalee ba la waaye ku ñu gisul gis ñu la waaye daal ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñoo takk ay ja ay lam di ay góor yàlla takk ay seen dinañ maslaa ak yow ci yërmande sëriñ bi ma nga bàyyi loolu waaw ban heure nga tàmbalee ramasser casquette yi démb waaw démb ci heure bii waaw démb laa ko tàmbalee ba heure bii maa ngi ci sëñ bi woo naa ko sànq di wax ak moom mu gën maa dolliwaat ni ma del maslaa daanaka ci maslaa boobu ci leen dox waaye nag du ñu teggi mukk ndigalu sëriñ bi du ñu teg waxi sëriñ bi du ñu teggi mukk beneen bi ci li ko dalee ca jumaa ja gi ñuy ñaanal suñu borom da ngeen ay papier yu wane ni yéen yéen a war a def liggéey bi wala déet waaw ca jumaa ja waaw waaw yor nañu ay papier ci la bokk waaw yoo xamante ne day day wane ni liggéey war nañ koo def ba fi ndool bu dugal bu ci nekk carte carte bi nga xamante ne maanaam moom moo nekk ci kër gee bokk na commencé ci maasu carte bi nekk ci kër gee waaye lépp benn la bunti kër yi maam Cheikh kenn ku ci nekk am na jëwriñ juñ fa jiital man sama kër sëriñ di kër sëriñ Assane Fall sama sëriñ lañ fa jiital muy sëriñ Assane Fall mu mag mu sëñ am di nogay Fall moom la ñu jiital muy sama yaakaar tey ëllëg waaw man démb tey jii rek maa ngi ciy déggante ak moom ci liggéey bi mu rafetlu ko dama ci soññu. dajewoo seeg benn jafe-jafe maanaam ngay jël benn kaset ci mbokk taalibe mu bañ ngeen jàppante ne waaw loolu du ci ñàkk waaye nag ñun ñi nga xamante ni comme ab Baye Fall buñ ko tooñee moo tooñ bu tooñee moo tooñ ndax ki nga xam dañ koo xamal ak ki xamaluñ ko du benn waaw ndax dañ ni sa maam Serap naa ci mag ñu ni sa maam Serap Fall nee na woon boo bëggee raw gaay boo bëggee ne ci kanamu gars yi nee na da raw gars yi taxaw nege ëpp doole te doon na ko too nee na bari njëriñ tey jëriñ waaye doo jëw ku ku yàlla bind waaye ku la jëw nga jégal ko daan ne nag da ngay xam sikki gars yi ba noppi maanu ci daan ne nag képp koo xamante ni tëlee na rek ci njaboot bi nga jàlle ko waaw nga am nga yóbbu faj waaw Baye Fall noonu la war a mel day neex deret ba pare nag da ngay joŋe waaw Baye Fall day da nga war a am na mel saafante gars yi seen ak seen i waaw waaw bu ko defee dan lay far bëgg waaw ñu ngi koy nangoo maanaam dem na ba am na ñoo xamante ne sax. casquette yi daa bëri. rëccu li nga si nii.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 شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نسوري وتايدي ويسير الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي